mais giraare. mais kala kala kii. waaw mais Mbaye ci loolu de. waaw yow kala kala kii. mais namu naa la de. mais aare. mais mais mais naka kaw la. waaw maa ngi nii di soog a ñëw. ah. maa ngi nii di soog a. mais kay nga jógee Angleterre. waaw yow yow Mbaye maa ngi fi ba àll yi ngay def waaye tamit. mais aare kala kala kii. waaw mais Mbaye kala kii waaw waaw dama bëgg a wax may ma rek. may ma saa yi waaw yëgal yëgal yëgal fi ma tax a baax. <laughs> mais aare kala kala kii. mais Mbaye mon ami mon frère. mais kala kala kii. waa Mbaye. mais kale kile ki dafa naa la. waaw mais maa la <laughs> ak noo ko waxee war kale moo ma gënal kale ni kale moo ma gënal kale kale ka. aywa moo nga jàppoon ba mel nii. Ah. bu ko bàyyee tijjig na la. mën na la fas. taxul fa sa raw. Ah. raw kanam. Ah. ku la ca gannaaw moo cay xala des. yaa kanam. ci kale kile ki. maa la wax noonu woon boobu. waaw loolu 2008 la woon tojoon na àdduna nag. 2008 ah, la woon maa la wax lii. tojoon na àdduna de. moto boobu day yëngaloon na réew mi nag moom. sant yàlla rek nag. fala fala fa fala la waali kii après si nga diw ak waali. waaw mooy premier diwo ma def ak waali. ah, ah waaw ci la woy fekk jëre ma ca mbéy Ali doomi Bada Ali ah. doomi Marème. ah ne ko Thion Mbaye bàyyi leen door. donc morceau boobu mooy premier diwo parce que après boo juddoo bu waali rek morceau boobu lañ ci teg. Aly Kelle Kelle Kelle noo def ba ba ba jékki eh, ba dem sa sa sa sa état Angleterre lan la ba ñu ne Aly borom Angleterre. waaw Aly Aly borom Angleterre lan la. non Angleterre moom mënu ma kaa. dégg naa da ngaa dewoon. non ñaanu ma yàlla. mais mais yow kan nga doon tëggal kan nga doon nekkal kan kan nga nekk bokkoon orchestre. Baaba Maal laa doon tëggal. ah Baaba Maal nga doon tëggal. maa ngi sama ba de Seck. defe naa ni Baaba Maal moom ànd ak moom un peu partout dans le boo xalaat ci Europe rek dem nañ fa. te jamono jooju donc nag dégg naa da ngaa daw ale ah, da dawoon dégg naa ko. man kay ñi fekkee ñu ngi fi ba léegi. mais ale dawoo. non non dawuma wax dëgg yàlla man maa fi jugee mille cinq mhm. li may wax baakan mën na ma seede. Baba mhm. Maal sama sama famille yëpp mën nañ ma mhm. seede. maa fi jugee amoon envie dem pour def leneen. mais mosuma ànd ak groupe daw ñaanuma ko yàlla sax. Euh, dem. ma dem après ba noonu ci ma fa euh, noonu la ma fa waali fekkee. Ah. ba loolu indi tey Ali Seck ak waali loolu indi tey Ali. ah Waly moo la fa fekk. waaw ah, Waly moom fa fekk. waaw lan la def foofu ba nekk foofu. waaw mais xam nga ñun Dóor waar rek te xam nga Sénégal leen day toll foo xam ne musique bi day toll foo xam ne da bëgg a changé. Hmm. xam nga bëgg a découvrir leneen. comme moment bii nga xam ni Kaolack moom ma gënal lépp loolu day am ko quoi. ci nit hmm. nit day toog benn moment dafay am foo xam ne moo koy gënal sax. Hmm. xam nga mais Aliou mbaa liggéeyuñu kenn liggéeyu ma. kuñ liggéey ah. kuñ mel nii. man kenn liggéeyu ma. neexu maa jàpp parce que am ñaani waajur. mais ale ale ale sa digganteeg waale. Mhm. waale. Uh-huh. nga nekkoon ak moom yenn saa su da ngeen di tase si diwo. Mhm. mu naan la nga naan ma mu naan la. Mhm. am na woy boo xamante ne. woy na ko affaire bi da eh, eh, eh, su nekkee am ga ko euh, na gaa yi déglu déglu leen euh, man affaire bi ma jaaxal. muy nekk muy nekk euh, non waaw. waaw waaw ko déglu leen ko te teel teel déglu leen déglu leen la waa dalaa cax yokkal. yokkalal nit ñi. kala liggéey. Aly Kala Kala Kii mais àll bi yàgg na de. waaw lii moom da yàggu na deux mille deux mille seize ah. Hmm. li wax moo am solo. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. lii moo am solo li ñuy wax. déglu leen. gisuma fa kenn xaw ma kenn moom moo ma dalal Angleterre. ak ñoom Moustapha Diabane Santir Diakes ñoom Mbile Ndiaye. ayca. Mhm. waaw lan la lool da doon woy wala waaw Waly. xam nga. Baye sama xarit la. Mhm. sama jumeau la. Mhm. yàlla def ñu yàgg lool na. Waly bi ñuy ànd sax boobu Angleterre amul. boobu man joué gu ma sax musique kon loolu mu ngi bëgg yàgg. fii asalem Grand Yoff la ñu xamante man mooy nekkoon sama kër nijaay kër Coombaay. Coombaay bi nekk ci Youssou Ndour. ah Youssou nijaay moom ak sama yaay bokk ndey ak baay. Mhm. moom mu doon ñëw kër mag yaayam bi doon see suñ papa suñ maam bi Ndiaye Roos. Mhm. mooy mag ci ne Diouf bi nekkoon HLM Grand Yoff. Mhm. boobu waalee ngi jàng. Euh, bëgg fubal. man ma nekk xale soog a ñëw Dakar. ba yàlla def. mu ñëw Angleterre 2005 ñu fekkante fa. ñu dëkk un an. donc boobu. xamal li tax ma bëgg a FB tuuti. un mhm, mhm. boobu. Mhm. du benn fan. moo tax temps yi def naa benn émission ak DJ Yves. maa ngi nuyu DJ bu baax. donc wax ji bari. waaye man gëm naa ni mbay Sénégal kenn gënu ma fee bëgg wax. léegi taxawal. waaw ale émission boobu. ah ale da ni woon. oto bi moo indi coow li oto nii. da ni woon yow yaa jënd yow yaa jënd oto bi. sa ah, waali moo la jëndal oto bi. jékki-jékki ba sit yëpp bind ko yow nga delluwaat ne waali jëndalul oto bi yow daal yaa dafa ereel lan moo tax bi la ko euh, waali jëndalul ko nga taxaw si télé bi ne waalee ma ko jëndal jékki-jékki ne waali jëndalu ma ko loolu dafa mel ne euh, da nga da nga da nga da nga saboote waali mbay même même même même su la ko jëndalool. Mhm. wax nga xas nga wax ne maa ko jëndal lan moo moo tax loolu lan moo tax gars yi. waaw du leen jëndal du leen defal ñu taxaw ne waal defal na leen. lan moo tax loolu mbay xam nga man ñaanuma yàlla sax saboté waali mhm. ndax waali tey sama frère sama jumeau la sama deret la. Mhm. mais xëy na ma yaakaar ni wax lu du dëgg moo baaxul. oto bi da cee dugal xaalisam mais man. mais mais nag nga ni nga ni moo ma mottalil. waaw mais xam nga bëgg lu rafet. waaw léegi mais bëgg lu après nga ñëw ñaawal ko. non pourtant du sax ñaawal. Ah. cest à dama dama dama jàpp ni wax dëgg. aay mm, mm. te yàlla loolu la bëgg. Mm. ndax tey wax jii ñuy wax xamuñ sax ndax dina yegg. donc bi may jënd oto bi jël na xaalisam def ci. ma jënd ko. donc euh, di ko gërëm ci loolu. mbay. waa lii sama jumeau la. sénégalais yi nga xam ni émission boobu tax na ñu def ci ay commentaire di di ci wax lu nekk. man fi ma jaar ak waali bi may ànd ak waali ñoom fekkee wuñ te waale a personne moom bu tëddee. Mhm. mais dégg naa. Mhm. dégg naa nag da nga doon ñëw ñu lay téye si porte bi nga fippul nga ni. Mhm. kon bàyyi naa ko. comprendre nga. Uh-huh. lan moo tax euh, euh, euh, lan moo tax loolu ngeen yàgg comme ngeen yàgg ngeen foowandoo. soo ñëwee si bunt bi doo dugg soo ko soxlaa doo ko jot. yow mer boobu moo nga nga nga téyewoon sa xol bu génneeku. waa léegi mbay boo gisee loolu kër waale amul kuñ fa téyewul. ndax waa moo tax loolu ak liggéey leen naan yaa ko d'accord nga mais lool sax lool du dara parce que mm. tamit àdduna lañ nekk te mm. Wally toll na foo xam ne tey li muy changé gardien da donc dafa bari mm. xam naa loolu bokk na ci souvent nga ñëw fekk fa ñoo xam ne xamuñ la dañ lay xaarloo du tëye sax mais dañ lay xaarloo te moom bu Wally mun tey émission bi ñuy def bu ñu gisoon léegi dina taxaw ndax ah. mais dégg nga jëlatu la téléphone. waaw mais d' dégg naa jot a waal de waaw dégg naa waal dara de boobu ba léegi bi nga waxee boobu ba tey. boobu ba léegi nag gisewul. waaw waaw dara mere nag. waaw non d' que doo ko ko jég doo ko fii. ne waali baal ma àq. Ah. <laughs> wala wala lan la. Mbaye. Hmm? man jërëjërë laa. Hmm. maa ngi nuyu sama yaay Mare Mbaye bu baax. sama papa hmm. Bada Seck. sama nijaay Thiaw Mbaye ñoom Baakal man ci famille bi ma bokk du famille bu ndaw man tay bi may def musique Wally def musique mhm. te tey je pense que ni li nit ñi loo xam wax nako dama koy leeral rek mhm. wali tay parcoursam dama ciy jouer à 100% ah mais la motax bu mu est-ce que est-ce que waxee ah, est-ce que amoo fo xamante nak fa togon difa yak deram ñu wax ko wala est-ce que nekkoo wax ak téléphone kenn mu ah, enregistré la deug la wa deuk bi waa est-ce que du loolu tamit xam nga deuk bi dafa toj wa nit sax man na dem waxee nu ne mhm ndax def naa émission bi dégg naa nit waxee na nu ne waaye loolu lépp amul problème. parce que soo te vocalé kenn ne. Mhm. Wally de mi ngi defoon ñëpp waaye defaluma. Mhm. mais mhm. maa ngi koy xaar. parce que bi ñëpp dawee bi ñëpp bàyyee man maa jàppoon. soo ko xam nga loolu sutura la mais soo ko waxee soo ko envoyé keneen kooku su ko envoyé waale ñëw est-ce que tamit dafoo erreur boobu non musuma def loolu ndax man yàllaa ngi may teral man faa waali mbay maa ngi ter mbay boo ma xoolee sax xam ne yàllaa ngi may teral nee naa la depuis émission DTV bi ba léegi daw ma joué ji gisuma waali événement yi fi jàll yëpp waali yëkkatiwut un franc jox ma ko te maa ngi dund waali du loolu laa ko toppee ma wax naa leen émission DTV bi ne leen waali ma sa yëkkati cinq cent mille bu ron ma laaj ko ko mu jox ma ko Mm-hmm. parce que du loolu. mais yow kat yaa fi taxoon na ay waay defal na ma lii waay jor na ma oto mm-hmm. waay defal na ma dépense dégg ndekete yow li ngay wax yëpp waay defu ko. waaw yow tamit nga toogaat. mais mais Mbaye waay ko xam nga tamit yow da ngaa wax waaw ne déet. xam mbay sama xarit nga woon waaye fi nga bëgg a yóbbu émission métti na. ah déet <laughs> ah. waali bu ma calculer li ma li ma jox lépp ci ay cachet man naa jënd fukk oto. Mm-hmm. dafa fekk ni wax dëgg rek moom moo neex yàlla. te tey war naa mën a tabax kër sax ñu ne ma xamna auto bi avant may wax waali sax nit ñi nee nañ waalee ko ko jëndal tay buma tabaxoon kër fi amana ñu ne waali moo ko jox mais loolu nak barke bu yàlla def ci mom la frère man si Jimo Ali Seck ma lay xamal ni man mom jàppalu ma la dara ta xamna ni ne jàppaloo dara déjà émission bobu nak li ci xewoon lépp. Mm-hmm. bu fekkee am na leen lu ci déranger maa ngi la koy jégalu. ah déranger na ko parce que parce que li nga wax ne waa li maa jëndal dara damaa dul dem ba si ot ba si biir buntu kër ñu téye ma di jooy xam nga naan bàyyi naa waali bàyyi waali dafa ñàkk gor goddu gor lu di nga wax mbay <laughs> mbay mbay mbay waali la waali tey. lu nga wax ko ko <laughs> léegi après yow da ngaa bëgg jubóo wala. non pas jubóo sax ah. mbay. waali mosu ñoo xuloo xam nga lu tax. <laughs> Ah, waali waali boo xoolee liñ dund lépp. ak lim la xam nga lan la uh-huh. waaye dafa taxaw si mbooloo ay mbooloo. dëgg la tagg naan yaa ma def lii yaa ma def lii. aale. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ma jàppale. aale mm-hmm. même su dul woon xaalis sax. même su la joxul woon sax. mi ngi lay sigil. dëgg la comprendre nga. wax dëgg la xëy na dani. xam naa dani. yow toppee woo ko xaalis parce que. fi mu nekk nii yow. waali su ñàkkee mhm. waali su ñàkkee mhm. yow mën nga koo suturaal barki sëñ Fallou comprendre ga yow mën mhm. naa nangu sa oto ne la joxul ma ko bay barki sëñ Fallou xam nga loola nga noppi ne ah waa da ñoo kii xam est-ce loolu tamit da la jàppee yow nag nga jékki-jékki wax kenn dara audio boo xamante ne fuité la. waaye dégg ko uh-huh. dafay nekk mat ak métti. mbay ah, comme man ma ma Kouthia rek ne. Hmm. ñu ne ma ndax Kouthia ngi lay fay man leen uh-huh. Kouthia ah Kouthia da fay ma. audio boobu ñu envoyé Kouthia. dëgg xam nga loolu da koy métti. xam nga Sénégal ah. man yàlla def na ni du ma def audio di wax ci Wally lenn. Hmm. ndax tey ñi naan dañoo bëgg Wally yëpp maa leen gën a bëgg Wally. Hmm. barke sëñ Fallou parce que Wally bi ma koy bëgg boobu amul dara. man boobu yoruma dara yàlla di ñu boole ñuy ànd. ma koy ñaanal te man tey wax naa ko nee naa benn disque doo tey bu ma ko yoroon ñu ne ma ban waykat nga koy jox Wally laa koy jox. Mm. parce que nag c'est mon frère koo xam ne dund ngeen presque vingt cinq ans xaw ma trente ans. Mm. kooku xam nga beneen affaire la. donc ma koy nuyu di nuyu mbay si mbay si mm. Ndiaye ku baax la. Mm-hmm. moom gis naa lépp maa ngi koy ñaanal yàlla. ah mi ngi def ay jéego pour ngeen moom borom baax la parce que man moom wax dëgg yàlla. aw ma sax joti naan lii ak lii ak laa mais mbay si moom ku baax la. Wally encore une fois. bu fekkee lépp. mës ngaa dégg ci man lenn lu la déranger maa ngi koy jégalu di jégalu maman mm. Kiné gisa yaay Waly mm. chaque deux jours daf ñu doon woo téléphone bi ñekkee Londres maag Waly mm. di ñuy ñaax naan ñu dee leen julli dee leen jaamu yàlla dee leen lii dee leen lii kon man tey Waly bu ma ko waxee dara sax sama bopp laa ko wax xëy na njuumte mën na am ma wax mais man awma leen lu may teel Waly te it nag waaye da ngaa jooy nag na ko di non non sax c'est-à-dire man ànd ak Waly moo ma jik soxlawuma ci un franc. mun ngaa dem si Pape Diouf nag ah wala si Sidi ah, mais Pape Diouf c'est mon frère Sidi c'est mon frère mais man Waly tay fi ma jaar ak mom tay buma ma àndoon ak sax ñu laaj ma ko. mais est-ce que est-ce que li nga est-ce que bi euh, émission bi jeex jeexee yow sa akal. Mhm. Waly war won ci téléphone am. wala mhm. ne la suñu ko ñu waxtaan. dëgg la loolu tam mënon na nek. Mhm. li tax defu ko nag moom moo xam. en tout cas daal li ma la mëna wax ba mëna wax moy bi émission bi jallé ba légui ben yoon la ci gis Waly. te ben yoon bi flash la. boobu ba léegi ba nii may wax ak yow nii noo daf na ma ndax aali da nga ma soxla bi ma waxee loolu dama dem parce que dama ne pourquoi man ma ñëw mun naa ma ndax da nga ma soxla mais ma jàpp ni xëy na émission bi ni mu demee la mais bu fekkee daal waxoon naa ci lenn. du dara day mer li nga waxoon moom laa lay wax ni maa ngi jéggalu parce que nag boobu ba léegi gisuma te maa ngi sant yàlla sama digganteeg waal it. mais si ñoom Pape ak yooyu. ah xam nga est xam ne mbay benn nit rek laay fréquenté ci àdduna. muy waali fekk. Ah, ma wax la. mais lan moo tax yow am na d' accord mais man maa ngi sant yàlla ci lépp. Mm. dama la bëgg a wax ni vendredi bi passé. man mm. naa ne maxu suba teel. Mm-hmm. bi ma koy xam yàgg na. Mm. génne na presque cinq millions pour def ko man sama benn business te maxu bi ma ko gëjee dégg mot na six ans. Mm-hmm. barke Seydina Mouhamad maa ngi koy gërëm moom maxu suba teel. di ko ñaanal yàlla. ah est dem si ñuy label sama teel. non xal man maa mag loolu man Ireland laa nekkoon. Mm. mooy ñi yoroon Baaba Maal mooy ñoo ñoo yoroon Bob Marley. ñooñu ñoo lan tax profité woon. Mm-hmm. def say single. Mm-hmm. def say mm-hmm. a wéeru si kenn bala nga xalaat si kenn. non du question wéeru ci kenn parce que man ñaanuma yàlla wéeru ci kenn. mais tey ku am ku mel ni Waly ak fi ma jaar moom yëpp. non non ko gis nga ni loolu loolu. kii la instant bàyyi la woon rek damaa waroon a ji kii après business dem sa dem. waa léegi. est-ce que loolu gën woon yomb ma jox la lu gën a yomb mm-hmm. génn naa benn single boo xam ne incha waxoon naa la ko mm-hmm. dinañ ko génne ci mois février bi ak mm-hmm. kii la faute la tudd muy mbëggeel bu doy waar di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ci mais loolu du tax tamit ma ànd ak sama frère parce que bëgg naa bu ma paree yow émission bi parce que gëj naa ko gis presque def na six mois mais mbay émission bi damaa bëgg mu fi jugee nii dem kër wax li dem seeti ko parce que loolu moom moo gën a rafet te àdduna amul solo ma koy ñaan mais doo dugg de ah, man pale sax ma fa demee dugg. ah dama lu may tëree dugg mbay. da ah, <laughs> nga maa dogale. Ah. comme dogale nga ma. Ah. maa ngi nii fan fan lañ nekk Ouest Foire. te nga woo Ndiogu Mbaye wala wala nga woo Tumaani du ma ci woo Ndiogu Mbay. doo ma ci Tumaani woo ma ci Masamba ak Mademba. Mm. sama dig ñooñu ngay wax noonu tey man bi may ànd ak Waly boobu Waly xamu leen. a ah, mais yàlla. waaye déedéet woo Pa Maodo baay sax Paco man waaw waaye ay woowu ma kenn. Ah, man kon da nga am problème ñooñu. non barke sëñ Fall aw ma ca kenn problème. Ah. mais maa dul oo kenn pour dem kër Waly. mais est-ce que woo nga ko soo damay bañ beneen problème nag nga nga nga dem ñu téye la da koo war a woo. ne ko est-ce que waay tey waali bu ma romboon fii nuyu ma sax tey laa ko gën a jàpp waaw ko téléphone ba tey. est-ce que dégg naa du la jël da laa bloqué. d'accord du ma jël moom. waaw mais non bloqué. ah man da laa bloqué. <laughs> mbay waali bloqué wu ma. xëy na dafa naqaree jël téléphone en tout cas daal bu ma jógee fii ci yow bàyyi ma ma dem ci waali maa ngi gërëm sama yaay da nga maa dogale mbay bàyyil ma dem maa ngi gërëm sama yaay Marème Mbaye yaay ju baax laa yor parce que mbay gis après émission boobu feebar naa trois mois boo xam maa ngi tëdd Kaolack ah ndax la barke sëñ Fallou biir buy métti sonal dañ laa gërëm sama yaay ak sama famille yëpp ah di gërëm sama jabar Ndeye Assou yaay Mohamed ak Anna di gërëm ñëpp yow dina gërëm yow sama copain nga al mënu dem toog waaw mais mbay lan laay def Europe man sama yaay ngi Europe samay doom ñi ngi Europe et mbay Europe dara nekkatu fa. ah mais da ngaa bëgg wax kon euh, mais musicien Sidi Diop yi di daw. Ah. waaw mais musicien Sidi Diop yi daw li tax ñu daw. ñoom ah. ñoo ko xam nja te dégg naa njaab ñëw na. Ah. ñeneen ñi mën nañoo ñëw. saa na Europe moom dara dafa nekkatu fa loo sekk loo bokk alu papaam ak sam papa bokk ndey ak baay. léegi moo tax woo ko ne ko mu ñibbisi. xalaatuma lool alu jógee fii Sénégal ma bi muy dem. ah dem toog man ma koy oo naan ko ñëwal du ma ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca jërëjëf yàgg am nga ak affaire Sidi Diop. mais yow artiste yëpp laa xam. Hmm. Ah, dem di waay waay waay waay waay li ma la wax. Uh-huh. Mbaye si Ndiaye euh, euh, dégg naa keroog kii wax na la ko Amady. Uh-huh. Cheikh Anta wax na ko. fii ah yii eh, wuy ma taxawal na ma wax la rek. dama ne la man Waly Seck seen Waly Amady nee na. man Waly man Amady ëppale wu ma ci Waly. ah barki sëñ Fallou Mbacke. ah yow li mu wax ànd nga si damay bañ nga dem. seen mu taxaw yow man yow man ngay waxal de. dama ne la waali ëmadi ëppale wu ma fa. keneen ëppale wu ma fa. mais li ma la bëgg a wax ba bëgg a wax mooy man waali ci showbiz bi. mais ëmadi yéen a ngi dégg yéen a ngi xa déggante. non non. ah ci yow nga déggante moom de. barke sëñ Fallou du ma déggante moom aw ma sax numéro lan moo tax. non am naa. est-ce que xam nga ni moo seen gérer seen waali. man ngay wax loolu. waaw. mais waali ëmadi xam na ni ëppale wu ma fa. man ci kër gi laa bokk waaw. yaa ngi déggante ak Amady. déedéet Ah. lu tax ah xamante wu li xamante wu leen. say xarit lañ ñoom ñëpp la. lan moo tax bi nga ko gisoo woo moo tax ma koy woo moom daf maa woo. Ah. Mm-hmm. <laughs> di ah. a yomb. sëñ Fall bu ma naree jaar ci Mbindeef pour sama diggante Waali. Mm. boobaa na Waali dem man ma dem. Mm. ndax yow ñi ngay wax ñii ay ëmb di ñi ciy wax ñii bi may xam Waali xamuñ Waali. Mm. fi ma jaar ak Waali amaana ëmb di dëgg la. bokk na ci carrière Wally waaw non mais d' accord mais li ma la wax dama kaa xam de mm-hmm. Wally yàgg nañ de mm-hmm. Eumeudi bi muy nekk ci coon fekk ma nekk ci Baaba Maal mm-hmm. man Eumeudi bi may xam xanaa léegi-léegi mu def vingt cinq ans waaw donc pour man ma woo Eumeudi wala Ameth ci wala ma kenn pour na ko ci non loolu xaw ma ko sax yow man jërë-jërë laa man famille bi ma bokk dañoo am riche sama diggante ak Wally bu dee erreur la maa ngi juum mais nag maa ngi juum kon yow kon Wally kon dafa dafa dafa sàgganee nitu démb bi ah man de ma wax loolu man xam nga Sénégal fii da ngay toog ak mbay sax ñu naan la Boups la toogal. Waly Seck. mbaax la ko ñëpp xamee. mbaax googu laa koy seedeel te mbay. gis nga tey adduna bi toll nañ foo xam ni Sénégal da ngay wax lii ñu yóbbu ko fii. Waly kenn newul dafa bon. mais daal li ma bëgg mooy. comme li ma ko waxoon rek say nit. Mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne yàlla daf la boole ñoom démb kóllëre dafa am solo mm-hmm. téye na leen de mais na leen gën a téye mm-hmm. te xam naa ne moom yàlla jàmm la koy defal parce que borom baax la sama waay la nax léeg-léeg toog dama koy namm barki Seydina Muhammad waaw moom borom baax la jaajëf jaajëf